nga dem ba ni adduratul bay daa ñun la fu mu tegu woon soxlawul nekk ca doj ba compagnon am ñoo nekk sa doj ba soxlawul formule ba ndax moo tëgg formule ba Cheikh Tijani Chérif moo tëgg formule ba waaw formule u bayda Cheikh Tijani Chérif moo ko tëgg xam nga formule u adduratul bayda lan la xas bala soor bi nga xam ni mooy sóoratul mulki waxuma sóoratul mulki comme tabaaraka lazi bi yadihil mulku de ba ñuy jàng tuddee ko verset moom laa doon tafsir daaw Dakar xulillahuma malikal mulki tuuti mulka man tasha ila axiri dugal latif dugal salaamun xawlan min rabbin rahim dugal ixlaas mooy formilu addurratul bayda cheikh ko tëgg zikir la zikir la waaw zikir la formule bay bayda zikr la nombre usité am 92 la plus 92 ay chiffres laa leen di jox de moo ma ni naa précis dugal plus 1000 après mille plus 129 après 129 plus jawharatul kamal moo ma mën loo de <laughs> dama bëgg bu leer. werantee waxtaan yee bari formule formule damay leeral formule formule da ngay leeral formule lan la 92 la mooy chiffre ba plus lan plus 92 fekkee maîtriser wu ma ko kay kon kay boo koy xool naa juuma après 92 plus 92 plus 1000 après 1000 plus 129 plus jawharatul kamal na kenn defar euh, formule répétée mu xool chiffre du noonu de léegi nag la des mooy quatre-vingt-douze ya xam naa ñenn ñi dañ naan Mouhamad déet waxu ba leen Mouhamad formule la quatre-vingt-douze ba ca topp dañ naan Mouhamad waxu ba leen Mouhamad formule la. 92 ya mujj dañ naan Mouhamad waxu ba leen Mouhamad formule la 1000 ya dañ naan lii la formule la 129 ya dañ naan xam naa ca Latif lay dellu formule la plus jawharatul kamal la neex na wax nga dajale loolu mooy formule adduratul bay da Cheikh ko tëgg moo bu gaa ñi ni gaa yi xëccoo nañ formule ba ma ni mën na feeñ mën nañ ko yor waaye Cheikh moo téye doj ba adduratul bay daa waaw pour nga xam suprématie légendaire am xaqiiqaam moom waaw te lañ leen di nettali ca wàllam lool la